من أبوات المعاصي شيخنا نحن أولاد تجاني من أبوات المعاني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد حاتم النبيين وإمام المرسلين وصلاة والسلام على أشرف المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا حولي وبعد ايها والقادرين والقادرات ايها الابات والامرات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبكي جليتي مبكي طالبي غنا بان سنت يالله جلي سانغ سانغي سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baal xaq te di leen baal xaq di ñaan yàlla buur bi azza wa jalla jéggal na suñu bàkkaar nangul na suñu jaamu yàlla tabaarakallahu weer wi ñu nekk di chehru ramadan lépp loo xamante ne rek ngëneel a ngi ci yàlla bu mu umb kenn euh, bu ko defee rek tey ci seen émission tàntal na bi tey nag ñuy def spécial bay Cheikh Omar Saïd Kébé wali yàlla boobu nit yàlla bu mag a mag boobu ñu nar a waxtaan wi suñu sëriñ suñu soppe suñu xarit Cheikh Moustapha Kébé fa tabarakallahu moom lañu feggool nii ànd ak tamit njabootu bay Cheikh Omar Saïd Kébé alaaji isma ak ñu ko àndanteel ñëpp fa tabarakallahu bu ko defee rek balaa ñuy dugg ak bi ci waxtaan wi rek olof danaan otoraay bu jibee gaar faaw mu korne xam naa isma incha allah dañ leen bàyyi rek ngeen yëkkati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 الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر أخلاقه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم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 جي الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله جي الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله إلا الله ইল্লাল্লাহ জয় আল্লাহ মুহাম্মাদু ইয়া রাসূলাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জয় আল্লাহ মুহাম্মদ ইয়া রাসূলাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله جي الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله illallah jai Allah Muhammadu ya Rasulallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah jai Allah Muhammad ya Rasulallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah Zikarle Muhammadu ya Rasulallah La ilaha illallah La illallah La ilaha illallah Jai Allah La illallah La ilaha إلا الله جي الله إلا الله لا إله إلا الله جي الله من دفلني مقل يلا لا لا إلا الله من دفلني مقل يلا لا لا إلا الله من دفلني مقل يلا لا لا إلا الله ما يساعدك بيتك ناخ قل يا لا اله الا الله اي زاهدك بتجنا قل يا لا اله إلا الله صاحب كعبة تدنا خليا لا ألا إلا الله تدنا خليا صلصة مرتب لا ألا إلا الله ممكن خاملنا نولا إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله illallah Jai Allah Muhammadu ya Rasulallah La ilaha illallah La illallah La ilaha illallah Jai Allah La illallah La ilaha illallah Jai illallah illallah la ilaha illallah jay Allah bana def leen ne ñu màggal yàlla la ilaha illallah bay saahid ke be toj na xol yàlla la illallah toj na xol ya sol sambo tof la la illallah ngindi na no xamal na ñoo la la illallah gindi na góor gindi jigéen la ala illallah gindi na mag gindi na ndaw la ala illallah muhammad ya rasulallah la ilaha illallah illallah الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله محمد محمد يا رسول الله لا إله إلا الله محمد محمد يا رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام آه، ذكر جي دقنا dugg لي xol lii بذكر الله ala القلوب tabarakallahu xaaj isma ah lii nga yëkkati nii yàlla na nga ko yëkkati ci kanam muhammad rasulullah alayhi salatu wasalaam te ci li ci nekk ci ngëneel ak yiw yàlla na ko yàlla yokk ci say misaanul xasanaat ñun ñëpp ñu bokk yëwi tabaarakallaahu rek dañuy bàyyi kilifa gi ndaxte olof danaan ku ñëpp di déglu ko wax soof te ñun ñëpp Baye Moustapha Kébé la ñuy déglu fa tabaarakallaahu Baye Moustapha salaamualeykum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بك جلد سيطان في خبار تي في دكار سنغال ñoo ngi leen di nuyu nuyu bi nga xam ne moo gën a sell ci nuyu yi te mooy baatum asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di jël nuyo boobu nag di ko wasaare ci mboolem ummatul islaam <clears throat> ak fu waay mën a nekk suñu mbokki tariqa yi ak tariqa bu waay mën a nekk muy waa kër maam Seydi Hadji Malick waa kër maam Cheikh Ahmadou Bamba waa kër maam Limaamulaay waa kër sëriñ Thiénaba ak mboolem kuñ tuddul xëj na waxtu moo ko dul maye waaye ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp te di wax ne ñoom ñëpp benn lañ fa yàlla kenn moo leen may te mooy yàlla yàlla moo yaatoo noonu ñu nuyu leen di nuyu tamit ñi nga xam ne yéen ñi nga xam ne yéen lañ toogal fii ci eh, plateau bi oustaz eh, Faye fa tabarakallah ak technicien yi nga xam ne ñu man seen liggéey lañ lool te wax dëgg yàlla yaatu ci di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoom lañ àndal suñu mbokki taalibe yi muy Isma Sow ak Assane Fall ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ àndal Moustapha Sall euh, ak. Alaaji Keeba Alaaji Keeba ak su euh, euh, Yusufa mu ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp xëy na oustaz. Mm-hmm. yàlla moo dogal xëy na tey mooy njëlbeen gi fii ci tele bi nga xam ne mooy xibaar TV. Mm-hmm. waaye li nga xam ne ni waajoon nañ pour war a ñëw sax eh, gawma woon ne danañ xaj seen saal bi ñu ñëw wuy leen ci lu ñu neex muy tàntal nabi mm-hmm. nabil Moustapha lañ tàntal ñu tàntalee ko fii ci xibaar TV woo ci kan waa kër Maulana Cheikh Alhaaji Saïd Omar Kebe ñu jël programme bi nag tey muy spécial tàntal nabi ci kër Maulana Cheikh Alhaaji Saïd Omar Kebe ñan ñooy ñoo ñëw wuyu si wuyu sul fii kër Baye Seet Kébé ñooñu ñooy eh, Naylul Huda bu Kër Massar parce que oustaz Mawlana Cheikh Saïd hmm. nit la koo xam ne balañ koo waxtaanal dañ ko war a lal taayal hmm. ndax mboolem daayiraam fu daayira nekk boo xam ne yaa ngi aju ci kër Mawlana Cheikh Alhaaji Saïd hmm. daayira ba benn tur rek la Naylul Huda la tudd Naylul Huda mooy reenu njub muy yi nekk US America yi nekk Europe muy Europe ak fu nit wa daayira mën a nekk ci Sénégal Gambie fu ci ci sous région bi yëpp ñoom ñëpp daayira yi aju ci kër gi daal Naylul Huda lañ tudd lañ leen a xàmmee kay mooy numéro daayira daayira Naylul Huda number one number two number nangam ba ilal axr noonu la daayira yi tegaloo tey nag daayira Kër Massar ñoo teewal kullu Naylul Huda fu daa Huda mën a nekk ci diaspora bi ci européenne bi ak fii ci Euh, sous terrain bi yëpp sous sous région bi yëpp fa tabarakallahu daayira Ndey Xudaa bu Kër Masaar ñoo leen fi teewal fas yéene waxtaane fii ci tant bi nga xam ne moom lañ tàntal na bi ci xibaar TV ñi ciy waxtaanee ku jara waxtaanee ñi ciy waxtaanee koo xam ne boo ko waxtaanee rek fa tabarakallahu ni ñi gën a xam kan mooy Nabil Moustapha mm-hmm. ndax ki nga xam ne moom la ñuy waxtaanee di Mawlaana Cheikh Alhaaji Saïd Omar Kébé di góor gi mm-hmm. moo ñu wax ne maam Sidi Hadj Malick dafa ñëw wax ñetti Muhammad Sidi Hadj Malick dafa ñëw ne Muhammadu Nuur nit ñi yeewu yëg dégguñu la mu wax mu ne Muhammadul insaan ñu ne mooy kan ñu ne Muhammadu Rasulullahi maam Sidi Hadj Malick ne ñetti Muhammad yii la tudd ca téeréem ba su ba ko tuddee nag. ndekete dafa am Muhammad boo xam ne maam su Sidi Xaaji Malik dafa jël ay kiiraay yi kiiraay dal di ko muur ca Muhammad booba moo tax ko am bëti zahir kese doo gis Muhammad ñeneenteelu Muhammad bi Alaaji Malik nëbbu parce que oustaz Muhammad soo bindee turam defe naa ne quatre lettres la mm-hmm. kon booy tudd nettali Muhammad jëmm ji yëpp nga war a tudd kon ñeenti xaraf la ñeenti Muhammad la war a nekk ñeenti Muhammad yooyu nag du teggiin ngay tudd benn bi ci biti loolu moo tax maam Sidi Xaasi Malik jël benn Muhammad ba dal di ko nëbb na ko jawharatul kamal nëbbi ba demee ci jawharatul kamal boobu nga xam ne euh, fa tabarakallahu moom la Tijaani di wazifa di ci di ko jàng ci wazifa wi fukki per ak ñaar ñu wax ci wax yu rëy fa tabarakallahu jawhar la jawharatul kamal mooy wurus bu mat bi wurus bi gën a mat ci urus yi moom lañ jël moom la Seexuna Tijaan Sariif jël tuddee ko jawhar boobu dégg naa benn bis ma si Seydi Mouhamadul Mansour si borom daara ji mu ngi ñu ngi nettali ne dafa am ku ko masal laaj ne ko waaw lu tax salaatul fatiha moom man nga koy jàng bi xayri wudo in ci amuloo njàpp foo mën ne mën nga jàng salaatul fatiha waaye jawharatul kamal moom kenn du ko jàng te àndul ak njàpp àndul ak fulab Seydi ne leen loolu lu yomb la mm-hmm. ndax so fi amé nak mu jur dom dom ja bu nampé bu nopit mun la ñëw ratt ci nak bi am meew ñi na ah, hakay so raté meew ma meew mi su lo nexé nga nan ci 1 litre 1 litre demi na xaj ci sa bir bi rek du la def dara waye sëñ mohammed Mansour néna na moma yow nga nan sa litre man ma jël suma litre denc ko ba suba xam bu ma ñëw bu su dootul hmm. lan lay tuddu soow soow ma nag soo ñëwee danga am lu loo fekk ci kaw soow kaw soow mi loola moom la tuddee dax ñi daal di ko tonni dax goo dax booba ñu tonnee ci kaw soow ma ndaxam meew a ko jur de meew ma jur soow soow jur dax ba tax ndeysaan sët la ñuy gën a bëgg ci doom li gën a bëri hmm. kon dax sët la ci meew bi ñu tonnee dax bi benn kaas boo ko naanee ci dax bi doo génn wàcc étage bi doo mën a wàcc ci suuf balaa ngaa wàcc da ngay miir daanu wala bala naaj bi laalee nga daanu te pourtant soow ba boo ko dara de te pourtant meew ma tam mën nga cee naan un litre dara de waaye dax ba sët ba bu ko laal kon ñun wax kër Maolana Cheikh Alhaji Seydou Mar Kébé sët lañ ci yàlla Maolana tabaraka wa taala suñu borom subhanahu wa taala tax sañ nañoo duggee yàlla côté bu nekk mën nañoo waxee yàlla ci côté bu nekk waaye du lépp la ñuy wax fune te du fu lañuy waxee lépp li kulli makaanin maqaal li kulli maqaalin makaal makaan loolu la sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax mu ne place bu ne hmm. am na lees fa war a waxee wax ju ne am na fees ko war a waxee kon du nit yàlla li mu wàcc ci xam-xam ci sidna muhammad mu wasaare ko nga xam ne borom xam-xam yi moom lañ ñëw doon xam-xam booba loola lañ ci doon yëpp duut lañ ñi loolu lañ ñime nañ koo wax fu ne moo tax Sidi Hadj Malick ba ma bind sañu ta bind benn muhammad mais quatrième muhammad bi mu daal di jël beneen muhammad ba mu denc ko Cheikh na Tidiane Chérif ba mu ñëwee ci jawharatul kamal ba ñetti allahuma la fa dugal mm-hmm. denc benn ba dugal fa ñetti aynu denc beneen ba ñeenteel ba mu dugal fa ñetti nuuru denc ñeenteel ba kon ñetti ñett ak ñetti ñett yu ñetti ñett yuñ feeñal ak benn benn benn ñett yu ñu feeñal nëbbu benn benn yu ñu feeñal mu mooy mu ñëw ñeenteel ñetti ñett ba muy ñeent lool la Seydi Hadji Malick liggéey foofu Cheikh na Tidiane Chérif ñëw moom ba Cheikhu Tidiane liggéey ci jawhar bi moom la ñu Alaaji Malick doon junji ba tax mu ñëw ne Muhammad ba mu nekkee leer ñu ne xamuñ ko ñu ne mu ne Muhammad ba mu nekkee nit ñu ne ko ci fan moo doon fan la woon mu ne ba mu nekkee rasul sallallahu alayhi wa sallam ca Makka ci foofu dama ciy wax tuuti lu ñu suñu sëriñ Maolana Seex Alxaaji Sayd Umar Kebe leeral mhm. mu ne ma Moustapha Jibril mas na toog ak Seydina Muhammad di waxtaan ak Muhammad ne ko Seydina Muhammad yow est-ce que du man maa la mag maa yow sax kan nga yaakaar moo ci mag Muhammad ne ko ah Jibril defe naa ne man maa la mag di Jibril ne ko déedéet ñu xëccante ba mu yàgg jibril ne ko muhammad mu naa mu ne ko am na benn biddiw boo xam ne day danay faral di fiq naa waa ndakaaru nag du ñuy xam olof yi fiq mooy fenk daal waaw biddiw bi su fenkee soixante-dix mille ans lay fenk du nga jant bi su génnee su fenkee moom douze heures douze lay fenk. nëbbu douze heures de temps. Mm-hmm. biddiw ba moom su fenkee day génn soixante dix mille ans lay génn suuxaat nëbbu soixante dix mille ans. jibril muhammad ne ko waaw biddiw boobu xam naa ko jibril ne ko biddiw ba man de fekk fekk fekk na ma fi di génn di fekk di dem ba mu di soixante-dix mille fois Seydina Muhammad ne ko ah, ah ma ne ko yow de nga de mu ne ko waaw mu ne Seydina Muhammad ne ko man maa doon biddiw boobu jërëjëf maam Seydi Hadji Malick moom mi ñu nettali mu ne ko man maay biddiw booba Mawlana Cheikh Seydou Marke moo ñu nettali sax maa ngi jub léegi booba maam Seydi Hadji Malick ba muy woy dafa woy nekkee leer leer googu nag soo demee ba ci biir moom la lay wax na la jéggi na fukki diig fukki géej ak ñaar Maodo ne géej bu ci nekk xam naa la leer ga doon sab si leeru Seydina Muhammad doon sabbaal ci géej googu ba génn ci géej ga di lu suubaat ci geneen géej kon géej yooya Maolana Cheikh Sayd daf ñu ci xuusal par géej ci bu ñu ci sabbaal par baat diñu ci sabal par baat ba sabal ba mat ñi jéggi géej googa dellu jaar xii xuusaat geneen géej ba fukki géejee ak ñaar mat ñu door a ñëw nekkaat judduwaat judd bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax ne na ngeen defee na ngeen fexe ba muutu la an tamuutu Mhm. rey leen seen bopp bala dee di ñëw bu ngeen rayee seen bopp bala dee di ñëw ngeen dekkiwaat dootu leen deewati noonu la ñuy Mawlana Cheikh Seydou Omar Kébé reyee ci géej yooyu bañ ko jigee ba pare dekki nañ dee dootul amati moo tax oustaz bi ñu ñëwee toog xale yi liñ njëkk a yëkkati mooy baatul laa ilaha illallah ba fas yéene waxtaan ci laa ilaha illallah bi nga xam ne moom la suñu sëriñ Mawlana Cheikh Alhaaji Seydou Omar Kébé sol ci suñuy dënn moom la ñu yaree ci moom la ñu taaj waaye ci moom la ñuy dundee waaye ci moom la ñuy waxtaanee tamit ñun fu ñu toll akbar oustaz mhm. kan mooy Mawlana Cheikh Alhaaji Saïd Omar Kébé mhm. mooy ki nga xam ne moo ñu leeral kan mooy Muhammad ibnu Abdullahi ak kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak kan mooy rasulullahi ak kan mooy nabil Mustafa kii Maola ki ñuy leeral lii kooku mooy góor gu xees gële toogoon fële ci gàm bi mhm. di boo xam ne kenn mënu koo natt Mawlana Cheikh Alhaji Seydou Mar Kébé kan mooy Mawlana Cheikh Alhaji Seydou Mar Kébé mu ne Moustapha ma naa ah, mu ne ma suma ma faatoo buñ ma robee sax bu ngeen ñëwee ci bàmmeel bàmmeel bi nee leen taalibe Cheikh Kabir moo tëdd fii. kan moo doon sëriñam Mawlana Cheikh Imam Mouhamadul Kabir bari saaxibul fuyadat rabbaani ca Wélingara waalo ca weti kër Tafa ca dëkku Moustapha Niass boo fa la nekk fa la dëkk. kooka mooy sëriñu sunu sëriñ di Mawlana Cheikh Alhaji Seydou Marke bi góor gu bari woon may lool mayami kenn mënu koo wax. waaye ñun buñ ko yëgee ci góor gii lañ yëgee li bala ci Cheikh Imam Mouhamadou Kabir kon bu kii rek la ñuy woy kon kii rek la ñuy bàkk moom rek la ñuy tagg ki ñuy tagg di ko woy di ko bàkk nag kooka moom mooy bëggee Cheikh Imam Mouhamadou Kabir Bari mhm. ndax ñun Cheikh Imam bu ñu jokkoo ci moom directement dañuy burle ñu ngi nuyu bu baax xalifaam bu tedd ba Cheikh Jamal Imam Kabir Bari yal na yàlla yokk guddal fanam lool te yàggal ko fi te wéral ko ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu sunu xalifa kër Maolana si alxaaji Saïd Omar Kebe di Cheikh Mahamadul Bachir Saïd Omar Kebe yal na yàlla yàggal leen fi lool ànd ak de wér ak tal bi jaahi Maolana si alxaaji Saïd Omar Kebe ak mboolem ku ne amin ak ku sopp Maolana si alxaaji Saïd Omar Kebe su ko defee góor googu moo ñu tarbiya ci baat boobu nga xam ne mooy baatu la ilaha illallah baat boo xam ne cent vingt quatre mille yi nga xam ne ay prophète lañ yàlla yónni leen ci kaw suuf cent vingt quatre mille yi sayyiduna Muhammad moo leen mottali bi mu ñëwee sunu sëriñ mu ne cent vingt quatre mille prophètes yooyu dañoo def compo wala ñu def examen trois cent treize ñoo génn jàll bu ñu defee trois cent treize yooyu defaat leen examen vingt cinq ñoo génnaat jàll sayyiduna Muhammad jiite leen yàlla jël 25 yoy jël sen tour def ko ci téré bi nga xamné moy ngeen ngën ji téere te mooy alquranul karim suñu borom dellu defaat examen 25 yonent yoyu 5 delu gennat ñoñu ñoy ulul azmi ñoy borom dogu yi waye ulul azmi 5 cinq 5 ki nga xamné moy premier yi premier yi koku moy sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam muhammad nak buñ ko bëgg xam nañ dem fiñ ko tantalé sayduna muhammad nag buñ bëgg gis muhammad nañ ko dem fiñ ko tantalé damay wax né fepp fuñ tantal sidna muhammad mm. si nga dem ci tante ba gisoo sidna muhammad gul ak sëriñ bu mat sëriñ ndax bo dajee ak sëriñ bu mat sëriñ ñi tantal si borom tante way borom tante bi nak wax dëgg yalla bo ñëw war ko mëna a gis nag ha ah? kon nak ñëw nañ tay ci tante sayidina muhammad way and nañ ci ak sayidina muhammad ya cheikh al islam al haaji ibrahim ñes ñi koy sant diko gërëm bu baax ci kawlax borom medina bay mm-hmm. ak talibé mi bay dafa mas a wax mu ne dama waaje Kaolack war a dem London Angleterre. Mhm. Cheikh al Islam mu ne bi ma waaje ba génn suma néeg damaa ñëw ñu ubbil ma suma oto ma dugg fekk fa Seydina Muhammad ma nga toog. salaamaaleykum. nee na ñu dem ba aéroport ma yéeg ci avion bi fekk Rasulullah ci avion bi. nee na maag rasulullaay ba ma wàcc Angleterre ma fekkaat ko Angleterre noonu la ñuy Mawlaana Cheikh Seydou Omar Kébé yaree noonu la Cheikh al Islam daan yaree ay taalibeem su ko defee na ku ne taalibe mm, bàyyi ñes nga wax deug yalla nak war nga fexé nak ba rasulullah dula umpati talib bay nak umpu. ump mm-hmm. dama wax né nit ñi dañuy xam way xamé moy faral di të mm-hmm. parce que talib bay do nak ko li ñi légui talib bay dafa am talib man talib bay la né man talib cheikh al islam la ki né man talib ah, mawla ah, ah, ibrahim ñes la deug la ah yalla dafa indi wuté ñëppit duñ mëna yam Mm-hmm. ñëppit duñ mën a xam. Mm-hmm. waaye ñëppit duñ mën a tekki. dëgg faaw rek ñam yi ñuy dundee dana fi des. Mm-hmm. Baye Niass mu ne ah, ma ma ne Baye Niass taalibe Baye Niass bi mu ñëwee nekk ñetti catégorie kër goo demati noonu la taalibe yi nekk ñetti catégorie. buñ ko tuddee ak buñ ko tuddul buñ ko xamee ak buñ ko xamul kër goo dem këru diine goo dem rek ñetti catégorie taalibe moo fa nekk. oustaz looloo tax bi ngay jàpp julli farata. ak julli la ñu ne la jàppal cër bu ne na ko raxas ñetti yoon ndax diine ji dafa taxawee ñetti tànk xoolal caméra yi gaa yu baax yi sunu technicien yu baax yore ko caméra bi bu ci nekk ñaata tànk la taxawee ñett ndeysaan ñett yàgg na fi de islam iman ihsan ihsan su ko defee ñett yooyu oustaz moom la taalibe yi di gëmee ñett yooyu moo réer taalibe moo tax bi ngay raxas say cër ci njàppali Mawlaay Cheikh Cheikh Saïd Omar Kébé mu ne ma xanaa xamula ne njàppali bi ngay jàpp cër boo raxas rek dafa am lu tax nga di ko raxas xam nga lu tilimut kenn du ko raxas mm-hmm. kon oustaz euh, taalibe bu ne war naa laaj sëriñam li may jàpp ban tilim ci sumay loxo mm-hmm. ba ma mm-hmm. ban tilim moo nekk ci sumay bët ci may bakkan ci sumay nopp ci sumay tànk ba cëriñ jàpp ya jeex tilim booba lay laajte suma sëriñ nga la wax ma lan moo fa nekk ban façon ngi tilim la ndekete façon ngi tilim yooyu jëmm ji ndoxum ñuul ndoxum mii di ndoxu robina ak saabu ak njàmpe du ko setal ndox mu laab kese kese kese kese mu zahir mii du ko defer parce que yàlla nag lépp lu mu bind loo rek def na ci ñaar ndoxum zahir mii ñuy wax ne maa ul mutlaq la maa um tahirun mutlaqun dafa laab lool tahirun mutahirun laab na mën naa laabal du ndoxum robina ndoxum robina yow yaa ko root yaa ko laabal yaa gas foras bi yaay seet ndax laab na wala laabul nga bëgg mu laabal la yow ndox moomu du laabal nit ba tax bi ñu demee ci sëriñ ba ñetti ndox yooyu la fa taalibe yi nekkee taalibe ya nga fekk ñu jaxasoo ci sëriñ ba di dox di war laa naka lañ ko waxee di joxe hadiya di sukkal sëriñ bi di ko raamal boo ko seetee yow bu dee am nga basira da nga fa gis ñetti façon taalibe yi ma lay wax yëpp waaye boo ma comme kër Baay laa joxe exemple kër Baay Ñas taalibe Baay ñooñu ñooy ànd ak Mawla Baay Ñas ëllëg yowmal qiyaam fu Baay Ñas dugg ñu dugg fa ak moom waaye taalibe Seexul Islaam taalibe alaaji ibrahima ñesi ngeen baal mag mën nañoo bañ a dem de kon nag képp kuy taalibe mawlaay eh, mawlaay kër kër bàyyi ñes rek fexeel doon taalibe bàyyi te bañ a doon taalibe cheikh al islam taalibe bële waxuma la bu ko doon de waaye doonal taalibe alaaji ibrahima ñes wëlbati ko a doon soo ko doonee rek ci ngay daal di raw dootoo rëcciti ndaxte iblis dafa nekk kàccoor boo xam ne dafa bari doole lool mawlaay cheikh sayid mu ne ma ku naqadee saafara la waaye ku naqaree rëcc la. Iblis moom Iblis. ba naka lañ koy waxati Baye Niass. doon na nit koo xam ne fa tabarakallahu du ànd ak nit mukk ëllëg yowmal mu àndoon ak yow fii bu yowmal qiyaam mu dem la bàyyi noonu. kazalika dañuy joxe référence ci Baye rek waaye bu ñu waxee Baye Niass nee nañ Cheikh Cheikh Sidi Hadji Malick bu ñu waxee Cheikh Sidi Hadji Malick nee nañ mbokkam mu baax ma di Cheikh Ahmad Cheikh Sidi Ahmad Bamba Khadimu Rasul waaye fa tabarakallah ñun ñoo yooyu yëpp ki ñu ko xamal ki ñu xamal ñooñu tax ñi xam ñooñu tax ñi bëgg ñooñu kooku mooy Mawlaaya Cheikh Alhaaji Cheikh Sayd Omar Kébé parce que oustaz nit ki sooy bëgg dara day fekk nga xam ko ci la bëgg di mën a wér waaye sooy bañ dara it dafa fekk nga xam ko li ngay bañ ndax mbañ nga door a wér looloo tax sayyidina Muhammad ne ñi al ilmu kullu shay'in afdalu min jahliha xam lu nekk moo gën réere ko ndax boo xamee door a bëgg ci ngay door a bëgg mbëggeel goo xam ne dangay ngay àgg ci ndi yàlla door a mën a jëriñu waaye boo bëggee te xamuloo da ngay tërëf tërëfee di làmbatu mën ngaa dem ba rëcc jaari feneen foo xam ne mara de taali Mawlaay Cheikh al Islam Mawlaay naa Cheikh mooy kii nga xam ne moo ñu teg ci tariqa cheikhuna ahmad tidiane sharif nandal ñi baatu la ilaha illallah bi nga xam ne mboolem prophètes yàlla yónni woon cent vingt quatre mille yëpp te seydina muhammad jël raw gàddu baat bii lañ amee woon moo tax bi mu jëlee raw gàddu gi ñëw borom bi joxoñ ko baaram ne ko yow nag na nga bàyyi xel ne wa ma arsalna min qablika min rasulin illa yuha annahu ilayhi laa ilaha illa allahu faabudni yow muhammad ñi fi jiitoon ñëpp de ak luñ bari bari kàddu gi jibril fekk la tey ci xont bi la iqra bismi rabbika loola laa leen joxoon loola lañ leen defoon iqra bismi rabbika loola la ñu mawlaana cheikh sayd omar kebe fekk ca xaaru xira ni ñu iqra bismi rabbika xam nga oustaz iqra bismi rabbika waxul iqra bil qur'ani hmm. dëgg la waxut ko Muhammad jàngal julli wala jàngal woor ismu rabbika la ko wax bu ko neexoon tëggee ko beneen siixa mooy iqra bismillahi al azam waaye tëggut ko siixa boobu mhm. daf ko tëgg siixa bu gën a woyof nga xam ne siixa bu woyof boobu dégg-dégg bu xootul doo mën a xam fa muy waxee ndekete Seydina Muhammad ki juddu di liir bu ndaw dal di tàllal baaraamu sànnikaayam ne subuuxul quduusun rabbul malaikatu war ruux liir boobu juddu wax loolu kooka du màgg di jël ndoxam ak ñam di dem ca peggu màkk ca benn xunt di fa làqu nga ne day yegg tëdd di nelaw wala mu yegg toog rek deful dara di dem yegg yooti lam fa doon def baat bii di laa ilaha illallah Mawlana Cheikh Seydou Markabi mu ne baat bii la fa Seydina Muhammad daan tudd. mooy lamp diine day dox di leeral ku baax mu leeral ku bon mu leeral. bay ke bégee. jen ya gai ba wan sandi len barga ya. sunyo waje waja mai jant punjal lor khol ko duyo mbusaler gi murna betu zairia baike bege jen ya gai ya ba wan sandi len bal ya. sunyo waje waja Moilero yàlla mooy sirrullahi xutbul maxtum gi ñoo ngi lay siyaare bay Kébé géej la jën yaa ngay baawan sànni leen mbaal ya suñu waajay waaja bay Kébé géej la ñun fa la ñu naane fii ku fi mandi sayt moo la naan dal ay kebe géej la jën yaa ngay baawoon sànni leen mbaal ya suñu waajay waaja jërëjëf Baye Saïd Kébé géej la ñun ci moom la ñu naanee lan lañ naanee ci moom mooy baatu laa ilaha illallah boobu sayyidina muhammad eh, yoroon te bu ñu nee al ulamaau warasatul anbiyaa boroom xam-xam yi ñoo donn yonent yi wiraasa gañ doon ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem yonent bu fi jaaroon ndoneel googa mooy baatub laa ilaha illallah parce que yonent yi duñ doon seeni soxna bàyyi wuñ fi alal yu ñuy donn du ay tool waaye du ay giléem ak i oto waaye lan lañ ci bàyyi mooy baat boobu nga xam ne moom la leen suñu borom tànnee woon ñi gën ñëpp mooy baat bi nga xam ne moom la leen suñu borom tànnee woon ñi daan si defar jaami yàlla yi baat boobu su fekkee ne yonent bi dafa ñëw li utamima makaarimal axlaaq axlaaq ngir mu defar jikko yi ñi gën a sell gën a rafet su fekkee loolu la yàlla yónnee Seydina Muhammad Seydina Muhammad nekk di defar jikko yi ba 23 ans ci la doon defar jikko yi mu doo fee jógee lan la doon defare jikko yi mooy ba mu nekkee ci xuntuma fi ma toll woon jibril fekk ko fa ne ko iqara ma iqara boobu mm-hmm. boobu mooy wiraasa gi iqara boobu sëriñ moo ko war a wax taalibe taalibe moo war a am dogu dem ci sëriñ ndax alquran moo ñu tudd ne yaa ayuha alladina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila yaa ayuha gëm yàlla bu fekkee ne gëm nga yàlla neel présent su ko defee sone ne présent tontu bi war a ñëw kilo woo daal di wax ak yow mu ni la ittaqullaah ragalal yàlla de ñun nag dañu defee ne ku gëm yàlla ragal yàlla rek yow mucc nga hmm. yow wàcc nga gëm nga yàlla ragal yàlla ndekete doyagut kon wabtaxu da nga war a dem sàkku ji wabtaxu da nga war a dem uuti ji ilayhi pour lu lay delloo ci yàlla al wasila bu lay wasila boo xam ne ilayhi daf lay delloo ci sa bi subhanahu wa taala hmm. parce que alquran moo ne inna ila rabbika rujaa ca borom ba la ñuy dellu oustaz su fekkee danga nga ne ma kaay dellu Gàmbi kon xam nga ne man Gàmbi laa dëkk boo dëkkut Gàmbi jóge naa fa kon foofu jógee wutoon du la wax kaay dellu fa waaye technicien bi nga xam ne musul dem Gàmbi soo koy wax soo ko bëgg mu dem Gàmbi nooy wax da koy wax kaay déet kaay ñu dem. kaay ñu dem Gambie wala kaay dem Gambie nga koy wax. ko ok kon yàlla nag bu ne dellu ina ila rabbika rujaa delluwaay bi yëpp ci yàlla la kon fu ñuy dellu noonu kii moo ñu fa dellu kuy di góor gu tedd gii di Mawlana Cheikh Alhaji Seydi Oumar Kébé. dellu ci yàlla nag naka la borom di war a yëg dafa war a dem di dellu ci borom bi bi nga bi ñëwee ci Mawlana Cheikh Seydi bi nga xam ne moo ñuy dellu ci borom bi xam nga lum ñu wax. Mm-hmm. alxuraan rek la ñuy wax moom rek la ñu rek la ñu nàndal mu ne waatasimu bi xablillahi jamian maag yow ak ñi ñoom Baye Assane ak ñoom Baye Isma yëpp waxtasimu nañu jàpp bi xablillahi ci buum ak yàlla gi lañ wax waaye duut buum gooy gis di ci téye muy dem ci yàlla su may sa kurus gi kurus gi amul buum. dëgg la kurus gi daf ay caaxaan la fa ne. lu fa ne du dëgg. kon dëgg la bi xablillahi mooy ci dëggug yàlla gi. comme ci buum ak yàlla gi nga jàpp nag lañ sëriñ bi teg inna ilaa rabbika rujaa foo bëgg a dem maa ngi bëgg a dem ba Dakar biir dakaar mhm. péage baa ngi nii wit huit a ngi nii chauffeur bu mën a dawal a ngi nii. Mhm. carte nga am ci pour péage bi. Mhm. waaye dellu bi dana gaaw di léegi nag ñuy dellu feeg yeggaguloo nag yaa ngi ci yoon bi tariqa googu. Eh. bi nga demee ba yegg nag Dakar biir dakaar ga nga jëmoon nag léegi inna ila rabbikal muntaha Hmm. rujaa lahun dellu bu dellu ba ak kay léegi ak nga ci yàlla hmm. inna ila rabbikal muntaha kuy dellu kuy dem di dem ba àgg ci borom bi subhanahu wa taala amatuloo foo jëm foofu la ñu góor gi góor gu tedd gi di Mawlana Cheikh Alhaji Seydou Marke bi teg bu leen fàtte nag ñu ngi fii ci xibaar TV Mhm. daayira Naylul Huda bu Kër Massar. Mhm. ñëw ñëw di jàllale seen message. Mhm. sant gi ñu war a sant Maulana Cheikh Cheikh Al Hadj Seydou Omar Kébé. muy cant goo xam ne quatre ans ñi ngi koy def di sant góor gi at bu dee ñu def ko. fii ci Arafat. ci côté bassin bi ci boori euh, armeel yi. su ko defee cant googu kañ la le 20 avril. incha allahu taala bu ñu ko fekkee jàmm bu ko kenn tardé. su ko defee inna ila rabbikal muntaha xëy na dana am luñ ciy nëbbu inna ila rabbika rujaa dana am luñ ci nëbbu waaye bu keroog bis baa ku ñëw foofa incha allah daa dégg lu neex waaye da fa dégg lu nooy waaye da nga dégg loo xam ne lépp leer lay doon boo xam ne dafa nekk ci wirasa gi nga xam ne al ulama warasatul anbiyaay. Eh, oustaz dama am benn question bu loolu xam naa dinañ ci ñëwaat ci cant googu. bismillah eh, Baye Cheikh Omar. Mhm. Saïd Kébé lu ko yóbbu Gambie ak lu ko booleeg waa Gambie. fa la cosaanu cosaan ga ak yu demee noonu ndax xam naa ni moom waxtaan bi kawe na lool sama kalaas bi moom. <laughs> jërëjëf. <laughs> Eh, ñu ngi ci nekk di jël dars ndax bu nekk rek. Mhm. fu ñu dugg rek. Mhm. saan sa xol gën a gën a gën a gën a bëgg. Mhm. xam-xam bi niveau bi kawe na loolu macha allah. macha allah waaye pour ñuy seetaan. am na ñu bëri ñu ngi koy ñu ngi koy gis. waaye ci ci ci des nañ koo xam fa mu juddoo fa mu bàyyeekoo fa mu féetewoo ak yu demee noonu daal buñ ci mënee ñëwal. jërëjëf oustaz laaj nga lu ma sawar dinaa la wax la Serigne Touba waxoon fa kullu man saalani fa liy jawaab xablu wala tujaadilu ahlul kitaab. su ko defee kan mooy Maolana Cheikh Seye ñu ne fan la juddoo lan moo ko yóbbu Gàmbi. Mm-hmm. li ñu war a laaj ci mooy Maolana Cheikh Alhaji Saïd lan moo ko indi Sénégal. Mm-hmm. loolu mooy question bi. waaye Mawlana Cheikh Al Hadji Seydou Oumar Kébé Gàmbi la juddoo fa la baaya papaam way juróom bu góor juddoo fa la way juróom jigéen juddoo maamam moo tuddoon Saïd Kébé. Saïd Kébé moomu moo sanci Ndungu Kébé Ndungu Kébé Saïd Kébé moo jur baayam Omar Kébé Omar Kébé jur doom tuddee ko baayam di Saïd di Saïd Kébé muy Mawlana Cheikh Al Hadji Seydou Oumar Kébé mi kon dafa mel ni góor ga sanci dem na ba dellu dellusiwaat Ndungu Kebe yilifaat mond bi kon ba mu sancee Ndungu Kebe Ndungu Kebe la yilifoon sanc ko muy dëkkam waaye mu dellu dellusiwaat yilifaat mond bi kooku mooy Mawlana si Alxaaji Seydou Omar kon Ndungu Kebe la ji mooy dëkkam ci Gàmbi nekk mooy cosaanam boo demee ci euh, gox bu ñuy wax ñuumi foofu la Ndungu Kebe nekk dëkk la bu yàgg fa euh, dëkk bu mag la euh, Mawlana Cheikh Seydou Omar Kebe nag mooy kooku fa la juddoo fa la dëkk euh, way jur ñaari juróom yi kenn ki mu ngi dëkk Bantanding dëkk la boo xam ne mu ngi nekk ci wetu euh, Ndungu Kebe ñu di ko wax Bantanding wolof. Hmm. foofu la way juróom jigéen jógee ñëw ba Ndungu Kebe nee nañ sax Bantanding googu la sang bi juddoo. waaye nag kon li ma la wax ne moom nga waroon a laaj mooy fan lu fa indi lu indi Mawlana Cheikh Seye Sénégal ba mu juddoo foofa Gàmbi nekk Gàmbi ak i way juróom màgg. jàng comme ni ñëpp di war a jàngee foofa la njëkk a commencé jàng ca Gàmbi ca waajuram boo xam ne nii ñu ngi koy wax euh, euh, Ousmane Kébé Baye Ousmane kebe jafe naa ne moom la ca euh, gox booba moo ko njëkk a jàngal mu di fa jógee nag di def comme ni ko góor yàlla yi di defee rek di toxu ci xam-xam di uti xam-xam muy almu zahir bii almu sharia bi moog moom moog moom moog moom ba dugg Sénégal ay bërëb ci Sénégal dugg na fi taaleen ci côté Kër ma Madiabel ak yeneen i dëkk Kër Ayib yooyu yëpp ay dëkk la yoo xam ne Mawlana Cheikh Saïd Omar Kébé jaar na fa ngir lan gëstu xam-xam comme ni ko góor yàlla yi defee ba mu demee ba nga xam ne gëstu xam-xamam nag la ko mujjee dog mooy way juróomu góor dafa mujj tawat tawat boobu ñuy wax diabétis mooy jabet jabet dal ko lekk yu bëri mënatu koo lekk te moom mooy taawam te moom bëgg ku fonk jur la ma tax taalibeem ku ci ne def naan la boo ñëwee sukk ne damaa bëgg tariqa bi mu ne la mbaa sa ñaari wayjur dund nga ne waaw mu ne mbaa mbaa d'accord nañ loolu ku koy nam déglu ko dégg na mu di ko wax daf ne ku ku ñaari wayjuram gërëmut mënul sëriñ mënu koo defar wallahi xale bu jubóowut ak sa ñaari jur mu ne bàyyi ko ndax moom du moom moom bëggatul defar kooku kon kooku nii la jàngee ci tënk rek parce que waxtu bi duñu ko may temps bi duñu ko may xay na gannaaw bi mu jàngee nag di gëstu nag bi mu jàngee nag ba nga xam ne fi ni nii mu ngi toll ci njàngam dëgg dëgg dëgg waaye njàngam jeex na waaye bëggut a bàyyi njàng ndax bu ku bëgg xam-xam la way juram tawat mu ñibbisi ñeewenti way juram ñibbisi ñëw di ko dimbale way juram teer la woon hmm. Mawlaana Cheikh Seyd ñëw rek fi ñu xamee na ku am may la Mawlana Cheikh Saad Omar Kébé daal di ñëw di fekk papam am ay ñaw moom mooy juróom ay ñaw piis ci atelier ba muy jël tissu jéng ko di ko ñaw di ko daaminaa def tam musul toog ci machine pour apprenti kon boobu beneen kawtéef la boo xam ne feeñ ni ci sang bu tedd bi di Mawlana Cheikh Alhaji Sayd ba tissu ya jeex ku ñëw fekk ko fa ne yow foo jàngee ñaw mu leen kii mu ne leen ku leen jàng da ko xamul waaye man jàng naa ñaw fa tabaarakallaahu rek moom Mawlana Cheikh Alhaaji Saïd a Kébé mu daal di dugg ci wàllu maçon jaaxle na léegi nu muy dimbalee papam bëgg na muy lekk-lekk bu baax te bëgg na bu mu lekk-lekk goo xam ne baaxul ci feebar bi te bëgg na di ko fajaale ànd di ko fajaale te loolu toogaay du may alal jooj te te teraanga bu ne bëgg defal na ko bàyyim mu commencé wut tureelam ak léebulam xam lu ngeen léebu niveau di dem di uti di maçon ji tabax na boo duggee tey capital ba Banjul tey tabax ay étage yo xam bi ñi la bi mawlana cheikh seyd moko tabax bele moko tabax bele moko tabax te ken jàngalu ko maçon ba ci ndung kebe dekk tuba be samp nañ fa hôpital tabax nañ fa hôpital bu mak financer ko fa moom moko tabax da tax olof dafay wax mu ne ku sanc dekk say bok ñoy am ci tol yi gëna sori mom bi nga xamé ne nek na di tabax ba li feñu ko mu ne nak legi xala ma uti yalla comme niko yalla yi di dama ko wara am ci la ne ci tabaxam bi di ko waraale ndànk ba am contrat Sénégal ca frontière ba mu dégg fa génn góor gu ñuy wax imam Mouhamadul Kabir Bari di ko yàlla may mu dem seeti ko waaye ci tënk rek ba mu demee ci la jubóog moom fekk góor googu déclaré na lu jiitu ñeenti at ne leen lii ma yore mbokki pël bi moom tukulóor la pël yi di ko laaj li mu yore ci tariqa bi ndax gis nañ ne yow tariqa bi nga yore ak ni nga xamee tariqa bi yow daal ñun óolu nañ la ci tariqa bi ndax tariqa bi Cheikhuna Tidiane Serif mi borom tari tariqa bi képp ku mas a da ngaa xam yàlla. moo tax oustaz téere yi jàng nga leen boo demee ci téere yi diw sàngam téere Cheikhu Tidiane ko joxoon la cay tege mooy aarif billahi xam naa li des si waxtu bi bëriwut. Mm, des na waaw d' accord léegi <clears throat> mu dem fa bi mu demee fekk imaam. mbokkam yi topp nañ ko ci tarbiya boobu mu ne leen mu jox ko ñenn ñenn arrêté ne leen boroom a ngi ñëw nee na kooku bu ñëwee soo calculer santam dafay tolloog benn baat ci alquran loolu la santam di tolloot wax leen baat ba ñu ne baat ba mooy lan imaam leen mooy xittatun qulu xittatun yaxfir lakum xataayakum waaw bu ngeen waxee xittatun rek yàlla jégal leen seen i bàkkaar waaye kon góor gi ku ko gëm nooy def kii mooy nit ku baax walaay dëgg la moos doon romb mbaax kebe romb na mooy géeju mbaax tànk nii su ko macha allah billaay kebe daal amul moroom ndax sees bu mu toog ñaar duñu fa kii mooy fardu bi kenn miimu ko gaaji saat ba remoon moo del si waat ba imaam jawee dafa ne saay doo ngi ñëw gaañi toog di xaar xàmmee ko loolu la wax ne ba imaam ñëwee daf ne kii ñëw moom santam boo ko calculé 22 lay doo tolloo te mooy xitatun bi mu ñëw bi mu ñëwee tukulóor yi di ko xaar 4 ans cinquième année ba mu ne jaas yegg si ba mu ñëwee nuyoo ne ko imaam maangi ngi te mosuñu gisante mosuñu diggante mosuñu xamante. ba mu génne wan gannaaw gaa yi wan gannaaw im gaa yi mbokki tukulóor ñëw imaam ne leen ñëw na ba dem ñu ne la mu ne ki fi ñëwoon dana fi ñëwaat ngeen bàyyi ko xel. ba mu ñëwaatee gars yi laaj ko ne ko noo tudd mu ne Saïd ñu ne ko noo sant mu ne Kébé ñu calcule keef 20 la ba 2 muy 22 xitatun di 22. ñi commencé di seetlu jëmm ji dañ doon seetloo Seydina Muhammad di ko bàyyi xel di gis mandarga yi di ko bàyyi xel di gis mandarga yi ba mandarga yeneen Cheikh Imam waxoon jeex kon nii la doon nekk ci maçon ba gisante góor gu tedd googu di Cheikh Imam Mouhamadul Kabir Bari mu jël lam yoroon dal di ko ko yen ñu toog ay at mu ànd ak moom jógee fii dem Fass Maroc Fès siyaara ji Seexuna Tijaan Sërif ba ñu yeggee ca xabru rawdu Cheikhuna Tidiane Serif ba imam dafa toog ci rawdu bi Cheikh Sayd Omar Kébé sukk ci rawdu bi ñu ziyaara Cheikh ima ñu foog ne imam day ziyaara imam jël loxoom day jooram bu tedd ba teg ko ci rawdu Cheikh Cheikhuna Tidiane Serif radiyallahu taala anhu jël loxo càmmoñam teg ko ci mbaggu Mawlana Cheikh Alhaji Sayd Omar Kébé ne ko borom rawdu bii ku ko xam doo ko sosal sakkantuma nga di ko waxal leneen gannaawam wala sakkantuma kanamam Saïd Omar mom Omar lako dan wax Sayid Omar borom rawdu bi di Cheikhou Tidiane Lima la jox momako joxone ko lima jox la la jox xana li werna Omar borom rawdu bi ken ñi mut sosal gannaawam sakkantuma fi ci kanam ñi ngi tok suku fi ci rawdu lima la jox momako joxone ko Cheikh lima joxone joxoon jox ko Cheikh Said Omar Kébé waccio nañ fi ne ne ko mbir ya ngom doxalal mom la ki woy legi kon nak saa demal mbir yaa ngoog doxalal lo mën degit déggit bu doon taw posan wala muy taw ay pont ak khalisa xalisa war omar rewe mu naa mu ne ko gennal doxi man aar ba pare sa peru kurus bi fek yaa ngi dund ben per du ko fete ko gor boobu lañ andal mo nandal daire keur Massar koku legi mu ne ci kon liko indi senegal moy sëriñam boobu di Cheikh Imam mohammed Kabir Bari mm-hmm. comme nak Cheikh Imam mohammed Kabir Bari yenn ko lam ko yenn ko demal nga doxal ba mu yàgg mu ne ko saayid mu naa mu ne ko gis nga lii nga yore nii laa ilaha illallah bii ak ni nga koy tasaaree faydu bii mu ne ko fépp fu jant di tiim ci tiim di ko leeral fa sa faydu bii dana fa yegg te yaa ko fa yeggale su ma ko waxee nag ki nga xam ne dafa nekk ci xafla alquran mu ne laqad kunta mhm. fi xaflatin min haza xam-xam bii may wax am na koo xam ne da cee sàggan ba wuti ko ma tax du ko mën a xam mhm. waaye bu càggante gi génnee ci yow ba nga dem uti ko ba ka nga dem ko nekk ku mat mu ne la tey tey na nga naa ah, mu ne innaa fatahnaa laka fathan nga ah, mu ne la tey tey na nga ne ah mu ne laqad nag nakante mu ne fa kashafnaa anka ghitaaka nga ne ah mu ne la tey tey fa basuruka al yawma hadid ndax muy saf ko mos rek ko rek moo ko xam kon eh, Maulana Cheikh Seydou Oumar Kébé dañuy rek fa muruma di xoyom xoyomee le avril ci Kër Massar ca Arafat. ca côté Bazin ba. incha allah mel na ni le 20 avril moom xam naa ni moom du yomb <laughs> ndax ku fa ñëw rek di nga xam kan mooy Baye Cheikh Omar Sy Kébé macha allah dama bëggoon euh, parce que dama gis benn vidéo maa ngi ko doon partage <coughs> mhm. ci réseau yi Baye Cheikh Omar Sy mhm. doon firi abada buro mhm. ci firin bu yéeme ci njàngale mag ñi mhm. ma gisoon ni moom képp ku bindoon ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf la joxoon cër mhm. ci moom ay œuvre yi mu fi bàyyi woon ci lu ci gàtt rek yenn œuvre benn œuvre boo xam ni bind na ko fi ci ay tawasulaat wala xasida yu mu fi bàyyi jëmale ko ci ci ci yoon bi wala ci yàlla ak yonent jërëjëf fi may njëkkee oustaz mooy Maolana Cheikh Seydou Mar dafa doon nit koo xam ne euh, ay mbiram ah bu dee gis nañ ko lu néew lañ ci gis. Mm-hmm. bu fekkee gis nañ ko ay mbiram lu néew lañ ci gis soo gisee ñu bëgg Sidi Hadji Malick. Mm-hmm. bëgg maam Serigne Touba. Mm-hmm. bëgg mboolem nitu yàlla. wax nga ko léegi. lay kër gu mu waxtaanee nga ne kii la xam nga ne fii la nga ne nga ne kooku kii kii mooy sëriñam. ñooñu ñëpp kenn du ci sëriñam. mosul taxaw Tiwaawan. ndeysaan ànd nañ jaarat Tiwaawan dem Louga dem xam nga kuy dem Louga da nga jaar Tiwaawan jógee Dakar. ay yoon ànd nañ di dem Louga mu ni ma Moustapha maanaam mu ne ma nii de la xamee Tiwaawan suma tànk tegoogut oto taxaw ma wàcc si biir si biir si waawoon te bu la waxtaanalee maam Sidi Hadj Malick ak lam mbind nga ne alhamdulilah keneen noonu keneen noonu xam naa la la yem ci abada burux bi mooy maam Sidi Hadj Malick ba mu waxee ne abada burux ndax dafa feeñ ci man ay leer ay melax bàqu mooy benn melax buruux mooy ay melax ma ndax ay melax man moom laa gis maam alaaji Malick wala dama gëlëm fan la mu mel dafa question bu ko laaj ci suuf fan nga gisee melax alaaji Malick mu ne maa ngi ko gisee ci lëndëm gu tar gi ci suuf melax kay ci lañ ko xamee woon mu ne tax tajul xewalaam ñu ne ah alaaji Malick ñu dee melax koo gisuñ ko <laughs> maam Sidi Hadj ku toll ni moom ak lim defal yàlla yépp bu toogee bay wax ak melax ay melax yu jolli ci suuf buñ topé alaaji malik kuko top ku ne ak fulla mu wan la melax ya mu ne melax yi day dafa melni ni bi melaxee étage ya nek Shaam ca réewi hijaz étage yoy la jakarlo diko gis ah ndax caméra yi nek Dakar man nañoo gis Arabie Saoudi caméra nak defena technologie avancé na fi ne de ba tay caméra man na ko tu toll Dakar di gis sa Arabie Saoudi mam sidi di xaalis tok ci waawoon di gis Arabie Saoudi te yorul caméra boobu caméra bi yàlla bi la mooy melax googu melax googu lañ toppee Mawlana Cheikh Alhaji Seydou Mar Kébé eh. <laughs> su ndax moom bind wala bindut maam Sidi Hadji Malick ak maam Serigne Touba góor gi moo ñu wax mu ne Serigne Touba maam Cheikh dafa di wër guuru yàlla yi ku ne mu fëgg sa bëtt boo ñëwee bu damaa bëgg nga wan ma yàlla. noonu la ko maam Cheikh Ibra Fall toppee jël téeram yëpp nag daal di leen sànni. ne moom rijaalulaay la bëgg a doon te gisul ko ci gis na baatu rijaalulaay ci biir téere yi waaye moom jàng na téere yi ba dajal waaye mën na ko ta nekk rijaalulaay góor gu góoru yàlla bu lan la la Seex Ibra Faal di di di essayer daf naa la damaa bëgg nga tafsiral ma alquran boo tàmbalee ne bisimillahi maa ngi tàmbalee su may wax may jëf ci tur yàlla mu ne déet alif gii nga romb nag maa suñ ko de te jànguloo ko nga ne ko ah loolu de moom walaahu alam bi muraadihi mu ne bisimillahi jàmm yàlla bindut ci téeréem bii lu ñuy teggi yow tàmbale gu loolu di jël la kon bàyyil ma dem ci biir da nga bëri loo ko jël moo tax bi ñu duggee ci biir waa charia bi ñu duggee ci biir bëri na xaraf yu ñu jël ci biir alquran eh. ndax liif gu njëkk ga jël ga ñu romb la waaye keroog ba mu fëggee Serigne Touba buntam Serigne Touba ne am na ruuxu yàlla nitu yàlla bu may xeeñ moom it ruuxu Serigne Touba xeeñ ko ñoom ñaar ci la ñuy yëgante liñ toppee Maolana Cheikh Seyd moom la toppee mu ne sama sëriñ Maolana Cheikh Seyd mu ne ba Cheikh Ibra Fall yéggee ba sëriñ Touba defar ko ci baatu laa ilaha illa ba pare sëriñ Touba di yéeg ci kaw garab yi di daanu ci suuf da dara du ko jot mu ne laa ilaha illa sëriñ Touba nag ci la ne man nag kii su ma dof dof loo dina ma def leneen lu dul nit sëriñ Touba ne mes nëbbu nit ñi ba ni mu génn àddina dafa nëbbu jaamu yàlla yi nëbbu gi mu nag moo tax mu nàmm xalibaam jël ay kayitam di cëpp ci daam di di junj xam di ko dëxañ ci kayit yi ndax su waxee feeñalee lan def Cheikh Ibra Fall bu ko yokkoon feeñal ko rek nit ñi dañ ko def ne mooy yàlla bokkaale ñëw ñu ne ko ko fi def ñu ne sëñ Tuubaa maam Sidi Hadj Malick kasa gazalika ci mbooloo mi ko wër ñu bëri leen ndax bi mu ne abada bu ko leer ci melax yooyu waaw ba mu demee ba ba ne man maa raw yaayu Moussa mi ne dafa ëmb góor ñi di ko surwaale mu am doom jël doom ji sanni ko doom ji góor ji sànni ko ci daaj ko ci kees sànni ko ci géej gi ñi wër doom yi góor yi pour rey leen doom ji góor ji juddu firawna rey ñi wër ko far doom ji kees gi teere ji ca pale firawna ñi for ko firawna yer ko ba màgg ba ba mu koy buñ ko buñ ko foree delloowaat ko yaay mu yaayam yaayam di ko nampal mu ñi di ko fay te xamuñ ne kii yow ko jur. na yaay de kontaanee ci kontaan boobu maam Sidi Hadj Malick mu ne noonu laa kontaanee bi ma amee yàlla bi ma xamee yàlla. waaye nag man mbaay waaye rek waaye ndekk man alaaji maa damaa gestu nag ci li ma wër gisuma ñu ma wóolu ñu bari ñu bari wóolu ma leen ci leer gi xaaral man alaaji maa mën na bukk ci lay cëpp daa ay daam ci xalimaam ci daa di ko bir di ko nëbb ci kayit yi di cëpp daa xaliba ci daa di ko nëbb ci kayit yi ba ci mu gi mu ne nag li ma ci kayit yi bari na te diis na te neexut a dégg xaaral ma bind lu ko yombal taysiir hmm. ci la taalif téere boobu ñuy wax Taysiir kooku mu ne man ma taalif ko ngir ñëw yombal. wasilatul muna. macha allah kon kii mooy Mawlana Cheikh Alhaji Seydou Omar Kébé. lii moo tax ma Mawlana Alhaji Cheikh Seydou Omar Kébé moom nag mu mën a toog téye micro. air bi di ko jël monde bi yëpp di ko déglu. muy junj xam-xam bi. waaw te yow mi déggu dégguloo. dégguloo ka dégg dégg ki dugg te di dégg moom la yàlla may. moo tax du bind parce que góor gi bu xëyaan suba ba jant sol li muy wax buñ ko doon bind fukki ni dañ ci biir néeg bi di bind te duñu mën a jeexal la may wax. Mm-hmm. loolu de su ko bind. Mm-hmm. loolu moo tax bind waaye bind na xasida nag. Mm-hmm. benn xasida rek pour wan nit ñi ne la góor yàlla jàng ci àllama bil xalami jàng naa ko. waaye loola mbarit la. imaam Malik mu ne wa man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqaha faqad tazandaqa wa man jamaa baynahuma faqad taxaqaqa képp koo xam ne ci mbind mi kese nga am te mooy sharia amuloo baatin ba imaam Malik mu ne faasiq nga waxuma ko de sama sëriñ waxu ko imaam Malik mi mi mi mi sharia yëpp xam. Hmm. moo ne ku am sa em ci sharia kese àgguloo ci baatin ci xaqiqa imaam Malik mu ne faqad tafassaqa faasiq nga. ñu ne ko Malik luy faasiq mu ne faasiq bu waxee bu ko gëm. mu ne waaw naka la ñu di ci mucc mu ne wa man ku am charia xam ne charia euh, xam ne xaqiqa am na nga am xaqiqa jël jël charia ba mu ne ko ko imam malik mu ne faqat naka lañ ko yaa ma xam képp koo xam ne nii maanaam am nga am nga charia am xaqiqa kooku moo matal waaye ko am xaqiqa nag te amuloo sharia faqat tazandaqa ñu ne ko ko am xaqiqa ba pare nga gis ne ah ah nekkati la ma doon wax dëgg baa ngi nii kay xaqiqa mooy dëgg waaye sharia ba nga amoon démb nga weddi téere sharia yi kon su boobaa Maalik mu ne faqat tazandaqa ñu ne ko luy sindiix sindiix nga Maalik ñu ne ko luy sindiix mu ne kooka bu waxee dañ ko war a jël baat baatam bi dog ko xaajale ko bu jëmm ji ndax day weer yàlla te yàlla kenn di ko weer. Mm-hmm. loolu la sëriñ bi xam tax mu na nëbb ko jël ay xalimbaam bind quelque xasida pour ñu xam ne charia am na ko pare mu ñëw nag ñu waxtaan ci lii ñëpp daje ki noppam bëtt. ki noppam bëtut ki jëlee kataraagam ak ki amee kataraag ñëpp taxaw di seetaan sëriñ bi di déglu sëriñ bi kenn ku ne ci sa mustawa ndax Seydina Muhammad moo ne uxaatibu naasa bi qadri uqulihim noonu la sam sam la sam sam la wa kula am dootu rootaane bay kebe sam sam la wa kula am dootu rootaane sam sam la sam sam la wa kula am dootu rootaane بايك بزمزم وكل أمد ترتاني زمزم لا زمزم وكل أمد ترتاني بايك بزمزم وكل أمد ترتاني زمزم la zamzam la kula amdo tururo tani bay kebe zamzam la kula amdo tururo tani bëgg nañu ko yaakaar ci bu wér ku ko am dootul rootaani billaay am nañu sëriñ ku la am dootul rootaani zamzam la zamzam la ku la am dootul rootaani baike be zam zam la kula amro turotani gam yaakaar ci lu wér ku ko am dootul rootaani suñu gi yaaram waaw ku la am dootul rootaani zam-zam la zam-zam la ku la am dootul rootaani bay kebe zam-zam la ku la am dootul rootaani ni la xawsu ku ko am dootul rootaani billaay am nañu sëriñ ku la am dootul rootaani zamzam la zamzam la ku la am dootul rootaani barke be zamzam la ku la am dootul rootaani mu ngi noonu sam-sam la sam-sam la bàyyi kebe ku ko am dootuloo taani <laughs> tabaarakallahu Sénégal jooy nañ ko Gambia jooy nañ ko sous région bi jooy nañ ko addina bi ñëpp jooy nañ ko nit yàlla boo xamante ni fa tabaarakallahu bu démb doon tey ñi nga xamante ni sunu classe gii. yéex na noo jëflante moom daañu jëflante ak moom. fa mm. tabaarakallaahu mu ngi noonu rek eh, mel na ni wuréew a jëm na kën liñ amoon ci waxtu daanaka mat na bu yàgg waaye nag ki ñu doon waxtaanee mu ni mel. Mm. muy Baye Cheikh Omar Saïd Kébé. Mm. di nitu yàlla gu mag a mag. mel ni doomam doon nu ko waxtaanal. tabaarakallaahu moo tax émission bi dafa ala daw mi eh, ñun waa xibaar 221 dañuy sant yàlla ndax. bëri na télé yoo xam ne bu ñu sañoon am jëmm ju tedd yi ñëw di waxtaanee góor gi waaye nag xañ na nag eh, arab danaan kullu shay'in lahu sababun tabaarakallahu yàlla jaare ko ci xaaj isma mi te wane na ni bi ñuy nuyoo sax sëriñ bi suñu mbokk taalibe la wax te àddina nawlonte euh jël jël jël jël nit def ko ni sa mbokk jafe kon fa tabarakallah loolay wane li Baye Cheikh Omar Saïd Kébé naxunu benn yoon ah Baye Moustapha Kébé moom moo ñu amoon ci waxtaan gi moo ñu doon waxtaanal ci góor gi di leen bàyyiloo xel rek incha allahu annuel bi nga xamante ni daayiratu Huda ñoo def fii ci Kër Massar Neylul Huda ba Kër Massar ñuy def seen quatrième édition kañ lay doon le samedi 20 avril 2024 li fi cheikh bi waxtaanee incha allahu képp koo xamante ni baatin nga la ca biir bëgg nga koo xam ñu ngi lay jox dig daje incha allahu le 20 avril le 20 avril bii bu nu wooree ba noppi fii ci Kër Massar incha allahu cant neelul xudaa bu ko defee rek ñu bàyyi bàyyi Moustapha mu tàggatoo ak mbokk yi bu ko defee rek ñu daal di tëj jotaay bi. jërëjëf Oustaz ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax ci dalal bi nga xam ne dalal nga ñu fii ci tàntu Nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan Nabil Moustapha dafa yaatu lool dafa mel ni waxuñ ci moom dara sax. Mm-hmm. waaye Maolana Cheikh Sey itam dafa mel ni waxuñ ci moom dara sax. ndax moom ñoom dañu yaatu. Mm-hmm. ñu ngi feddliwaat rek sunu su sunu cant ak sunu ngërmande ci yéen. Mm-hmm. ñi nga xam ne yéenay waa kër gi di eh, xibaar 221 TV. ci ci Sénégal ci Dakar ñu leen a sant bu baax di leen gërëm. Mhm. di sàkku ci nit ñi mboolem fu waay mën a nekk rek nga. faral di seetaan télé bii nga xam ne ñu koy xibaar 221 TV ndax télé la boo xam ne nii yu am njëriñ rek lay génne. Hmm. te tamit nit ay nit lañ yoo xam ne ñu fi nekk ñu xam seen liggéey lañ ñu man seen liggéey lañ. Hmm. ñu xarañ lañ waaye ñu yaatu lañ te ubbeeku lool fa tabarakallahu hmm. eh, di sant suñu mbokk yi nga xam ne mbokki taalibe yi ñu àndal nii. nga xam ne dañ ñëw pour jàllale message bi nga xam ne muy édition bi nga xam ne moom la ñuy def muy quatrième édition cant Maulana si Alhaji Seydi Omar Kébé fii ci Kër ma Massar. moom la ñuy def di ko yëgal nag. di leen ko yëgal yéen waa kër gi rawatina yéen waa kër gi nag yéen a ci jiitu invité nañ leen yéen jox nañ leen invité d'honneur lañ koy waxam invité d'honneur nañ ñu ngi eh, invité ñu ngi koy yëgali tamit suñu mboolem dawaayir yi nekk ci Sénégal ak Gambie hmm. rawatina daayira Naylul Huda yi yi ne rawatina yi nekk biir Dakar nga xam ne Baye Ousmane Alhaji Ousmane Traoré mi nga xam ne mooy président fédération daayira Naylul Huda yi nekk Sénégal yëpp mhm. rawatina yi nekk Dakar ñu ngi ñu ngi jël euh, xibaar bi di ko yëgal Baye Ousmane Traoré mhm. waaye di ca teg Cheikh Paté xol mhm. fële ca parcelle waaye di ca teg tamit Cheikh Omar Diaw ca Dalifort waaye di nuyu di sant di ca teg Cheikh Babacar Mbaye Diouf ca Wakaam waaye Cheikh babakar Touré ca Wakaam ba tey ñu ngi ko koy yëgal di ko yëgal Cheikh Ibrahima Diouf fële ca Xodd ba di ko yëgal Cheikh Abdoulaye Dia ca Fass Mbaaw mm. ak mboolem muqaddam yi duñ mën a tudd ñëpp mm. waaye mboolem muqaddam di ko yëgal waa Mbuur yi moom ñoom Cheikh Oustaz Mouhamed Sall ak Oustaz Babacar Touré mm. ak eh, tamit Oustaz Alioune Sow fa tabaarakallaahu waxtu yi dem nañ ñu ngi jégalu mm-hmm. euh, bokk yi kuñ tuddul tamit nga xam ne mm-hmm. li duuf ci naw yëpp xajul ci cin li mm-hmm. waaye sunu yéene ak sunu bëgg-bëgg moo doon kenn ku ne buñ mënoon sañoon jaar ci sa tur teral la bu fekkee ne kàddu yi nag am na lu ci damm wala am na ci loo xam ne dafa xam ne euh, weer nañ ko. ñu mm. ngi jéggalu di sukk suñu ñaari bati oom ñun nag duñ doomi Seex Sayid. Mm. ci sa ci ci ci deret. waaye doomam lañ ci ruux ñii itam ay doomam lañ ci ruux. kon doomi deret mm-hmm. doomi ruux moo moo ñun moo moo ñu ko gënal mm, fa tabarakallah kon bu ñuy képp koo gis ñu di jox hadiye rek duur doomi deret baa tax ñu ko jox hadiye waaye ruux gaa tax ñu di ko jox hadiye kon doom lañ ci Mawlana Cheikh Seydou Makka ba ci ruuxu waaye duñ doomi deretam taalibeem lañ dañoo jaay lépp jëndee ko taalibe su ko defee nag loolu lañ bëggoon a mujjee suñuy kàddu di sant di gërëm di leen ñaanal mm-hmm. uh, wa ma tawfiqi illa billahi mm-hmm. wa sallallahu alayhi wa ala alihi mm-hmm. wa sahbihi wa sallam salaamaaleykum ko defee rek xam naa mel na ni xaaj isma comme que yéen yéen a ci organisation mbir meeg yooyu ko defee rek kàddu yi ngeen di rootal ak nit ñi ni ngeen koy waajee rek incha allah message boo xam ne di ngeen ko jàllale pour euh, gars yi bàyyi xel bu baax a baax le 20 avril incha allah. kon salaamaaleykum wa rahmatullah sama xarit sama soppe Baye Matar Faye ñu leen di ziar bu baax di lu plateau bi ak ni ñu fi fekk ñëpp techniciens yi waa xibaar 221 TV waaw ñëwoon rek. di leen fàttali suñu quatrième édition cant maw <clears throat> cant Maulana Cheikh Sayid Omar kebe bi nga xam ne depuis 2019 ñu ngi koy def fii si Arafat si bassin de rétention bi rek di si invité ñëpp comme ni ko sëriñ bi waxee rek duñ si mën a jaaraat yëpp mais surprise la daal ku fa ñëw daal di nga dégg yàlla di nga dégg lu bees mu ngi di si invité ñëpp waa Kër Massar xarit yeeg mbokk ancien élèves yeeg ñëpp waa marché ñëpp di leen si invité tabarakallahu mu ngi noonu moom isma moom ñoo bokkoon classe nga xam ni <laughs> mu nekkoon ku doy waar waaye moom duudi seen yëpp ñoom ku ku leen xool xam ni jamono ji ba Cheikh Omar Saïd defar na leen tabarakallahu li ñu li ñu xam yëpp duñ ko fi mën wax ndax léeg-léeg kon moom ma tooñ ko isma bi moom <laughs> xaritu Moussa Sam <laughs> tabarakallahu ñuy nuyu waa lii sa Kër Massar zone de Casamance gars yu baax yi nga xamante ni ñëpp ñoo bokkandoo woon nekkandoo fa lii lañ leen andiloon ci seen émission tantal na bi saa ñu leen di jox dig daje ak ndaanaan ci kilifa yo xamante inshallah lépp ci kër sayyiduna Muhammad lay amé tabarakallah ñu ngi contane bax di jaajeufal technicien yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci liggéey bi ku ci melni Cheikh bara haji yusuf coordinatrice Soxna astu PDG tambe du fata barakallah ñu ngi leen di jox dig daje inshallah fi ci xibar 221 ci yeneen ñu numéro ak yeneen ñu émission ak yeneen ñu surprise alaykum wa rahmatullah الثاني من أبوات